dellu sant mbay ci jikkoom kenn desul ku ney rëkk naan yaay mbërum ti waawonoo te sëriñ Babacar Si rafetul doomu gaynde njaay wàcc waasoom aouzu billahi sami alim mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi rawatina mbokk yi seetaan seen télé bu mag bii di war xa TV ngeen ñëw seen émission Kër Nabi di ci ànd ak seen mbokk seen xarit Serigne Babacar Guèye moom Serigne Abdoul Aziz Al Amin mbokk mi ngi noonu tey nag tabaarakallaahu ñu ñëwaat seen émission Kër Nabi fas yéene bëggalante ci Seyduna Muhammad alayhi salaatu wa salaam waaye yàlla dogal tey nag ñu dalal suñu soppee sunu xarit suñu mbokk pas-pas suñu mbokk taalibe nga xam ne kenn la ci kër Cheikh Seydi Hadji Malick waaye kenn la ci tagg Seyduna Muhammad muy alxaaji Pape Sylla borom parcelle waaye Pape Sylla mu alxaaji dut kenn mbay tey moom la dalal fii tabarakallah ci Warkha TV ñu war a fas yéene nag bégalante ci Seydouna Mohamed waaye nag waxtaan nag ci événement bi nga xam ne mooy am lu wét incha allahu rabi mars di xadaratu jumaa bi fii ci stade Guédiawaye alxaaji Pape Sylla maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara Serigne Babacar Sy maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la baala wax te di la ko baal di ñaan yàlla jàmm ak xéwal ak sutur dalal tabaarakallaahu ndax yow sunu xarit nga sunu soppe nga di la ziar bu baax ngay jàmbaar ci tarixa bi wax dëgg yàlla mission yooyu la yàlla boole ba ñu xamante ci di ci dox di ci wax Babacar maa ngi lay ziar bu baax Guèye fa tabaarakallaahu jëf ma nuyu nag sa àndandoo yi tabaarakallaahu Ali Al Amin nuyu tabaarakallaahu moom sekk la wax sax waaye dama koy wax Guèye Guèye Guèye Seydi Jamil waaw wala wala ma wala ma àll ko rek sekk Seydi Jamil tabarakallah ñu nuyu leen bu baax ziar leen alaaji pap kër gi nag ko fi ñëw balaa nga wax benn baat da ngay tagg Seydina Muhammad bu ko defee mbokk yi bekk ñu doog a dugg ci waxtaan bi loo indi tey من عما بسهبه موضنا على النبي وآلهم أجمعين السلام ربنا دائم من عما بسهبه وقد تواصلت يا رحمن يا شقتي يا من يندفي عن عذار ونقم موضن وسلام ربنا دائم من عما بصحبه ربي بأسمائي كالعذنى وأعظمها والأنبياء أستاسك نزمهم مولانا على نبي وآلهم أجمعين السلام ربنا دائم من أما بصحبه محمد أحمد الماء وحاسرنا نبي مرحمة تن توبي وملتحم موضني على نبي وآله وسلم لي أجمعين سلام ربنا دائم أنا أما بصحبهم ثم المقافي شات الفائقة دبطو وكازرها وشو كون اليا بكتبهم على نبي وأسلم أجمعين سلام رب من أما بصحبهم والعاقب الموتى في آثار ما سبق من أنبياء ورسل الله كلهم على نبي وعلى أجمعين وسلام بلا داء من عم بصحبه زاد المواهب أسماء أنوار تبع على الغروف يا منتهى الكلمة موضني على النبي وآلهم أجمعين سلام بلا داء من عما بصحبهم tabaarakallaahu alxaaji si la mu ñëw tagg Seydouna Mohamed ci xilaatu zahab ah bu maam Cheikh Seydi Alxaaji Malick tabaarakallaahu indi ci nag air bu neex boo xamante ne boo ko déggee sa xel dem ci alaaj Baye Mbaye doon mbay tabaarakallaahu alaaj Pape tagg yonent bi da ko judduwaale wala daf la dab wala da bëgg yonent bi rek di ko tagg waa tagg yonent bi nag moom mën nañ ñi daayira mutahabina fillahi biñ nekkoon mhm. di def chaque jeudi ñu dem daayira ci lañ nekk ba xëy rek di tagg yonent bi waaw ah, daayira bi moo tax nga doon taggkatu yonent bi waaw daayira bi moo tax ñu dem ba di tagg yonent bi waaye nag ñu jiitu lool nag fekk na boobu nag Baye Mbaye Donde moom dafa fekkoon nu bëgg ko suñu xol di ko déglu nag waaw ah, ku la dégg ni ngay wayee na sa xel day dem ci alaaj Baye Mbaye Donde nga xam ne am nga cofeel ci moom bu mag sax di ko déglu di ko déglu di ko déglu di ko déglu di ko déglu rek mhm. Euh, bu ñu ñëwee daayira léeg ñu sàcc woy ci eeram waaw hmm. ah, gars yi ni waay yow te nga jékki-jékki léegi di ñëw di woy ci daayira bi parce que ah, waaw boobu nag way bu gars yi ñëwee di way hmm. heure bu leen neex la ñuy ñëw ci daayira bi hmm. bu ñu wayee ba pare dem ñi bi bi wéet waaw ah, mag ñi waxtaan daan ni daal jaaduwul daayira bu tool ni amul waykat yàgg ñi fi nekk nag di jàng tey siir ak di nab nabi nañ leen encadré ngeen ñuy way daayira bi waaw loolu moo indi sa tagg yonent bi moo indi sama tagg yonent bi Pape bi ngay commencé tagg yonent bi amoon na métier moo nekkoon ndax yaa ngi ci ba léegi wala fi mu toll dangaa ngaa féesewu ci tagg yonent bi rek maa ngi sama métier ba léegi man tagg yonent bi moom mm-hmm. passion la ci man est-ce que maanaam dama ko bëgg di ko def di ko def waaye wax dëgg yàlla moom yaa ngi sa activité waaw waaw waaw parce que damay wax ni tagg yonent bi mm-hmm. ñi mu doon seen métier ñooñu dañu nekk ci mission bi ba mu forcer leen métier bi d' accord man dafa dem ba mu dab ba mu dab leen amatul temps wu sax. nekk seen métier amatul nekk seen métier. mais koo ci lax danaan la man menuisier laa woon. waaw wala mun la man ñoom ñëpp am. métier mu jàng ñëpp. Mm-hmm. tey boo xoolee alxaj dur kenn bay ñëpp xam nañ nii étudiant la woon jàng wara nekk journaliste métier bi dab ko. Mm-hmm. mënatul dem. Mm-hmm. moo tax mu nekk ci tàgg yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. ñeneen ñi ci des ñi université lañ nekkoon. Hmm. Euh, yàlla def ba affaire bi dab leen mënatuñ ko boole ak métier bi. Hmm. ñu xam foog nga choisir ci benn. ñu hmm. jël bee. waaye ñun ndaw ñi nag loolu bu la dabul. Mm. da ngay nekk sa liggéey. tabaarakallah loolu leer na moo tax booy am booy amay métier da nga koy boole tagg yonent bi mm. ndax bëri na kuy wane mbaadoo la chaque jour mbàqoo ñàkk rek moo koy wane muy wane mbaadoo la ci tagg yonent bi. Mm. kon nag boole ko métier dafa am solo loolu tabaarakallah li bon nag mooy mënoo ñaari way wala ñetti may way nga mën nga bàyyi sa métier topp tagg yonent bi loolu moom tabaarakallah ci doyo di rek la lay indi Pape loolu leer sa diggante Pape Sylla boo ko déggee ñu ne Pape Sylla bu alxaji dul kenn mbay Pape Sylla bu Tiwaawan nga tabaarakallaahu nekk Tiwaawoon di fa doxal lan moo la may loolu cofeel la wala waa loolu euh, bëgg sëriñ Abdou rek xam nga damay wax ni ah, yow sëriñ Abdou ah, Ami mooy sa sëriñ damay mhm. léegi ñëpp ko bëgg al waaw dëgg la waaye man dama judd fekk sama woy jur jël taawam tuddee ko sëriñ Abdou hmm. sama woy jur boobu rakkam ñu tuddee ko sëñ Abdou est-ce que bu nu ñëw ci sëñ Abdou mën nañ faa toog di waxtaan pendant quatre heures ba cinq heures de temps kenn du fa dugg moom sëñ Abdou rek jamono jooju la nekk ci sëñ Abdou bi nga xamante ni boo jógee dëgg jam la kon yow alamin gi xew gi léegi yóbbaale wu leen déedéet alamin ju njëkk nga ngeen nekkoon déedéet léegi <laughs> léegi nag moom ñëpp a bëgg sëñ Abdou parce que mhm. bañ bëgg mhm. neex bëgg. dëgg la parce que ku soxorul. Mhm. xam ni yàlla fay na ko. dëgg la de waaye nun nag bi ñu koy bëgg nag di ànd ak moom ah booba booba metti woon na de. kon loolu moo jur sa diggante alxaaji dut kenn mbay ak cofet nga am ci moom. sama diggante alxaaji dut mbay dañu daan dem ci duutu kenn eh, dañu daan dem ci Serigne Abdou di fa gisante benn bis ma nuyu si dut kenn. mu noo tudd. ma wax ko sama tur dox ko sama sant ni kon ne dama am ci yow cofeel goo xamante ni su ma sañoon su ma la nuyoo tey nga jaar sama tur jaar sama sant. ndeysaan waaw waaw dëgg la de mu ne ma d'accord yàlla dugaat matal ñetti fan ñu dajawaat mu jaar sama tur jaar sama sant. ndeysaan ma ni kon kii nag cofeel gi ma am ci moom. dëgg la ci laa ñëw nag. soobu ci moom soobu ci moom nag. Mm-hmm. soobu ci moom mu nekk nit ku baax nekk nit ku yiw ci lañ dem ba coordination bi juddu. ci lañ dem ba cent pour cent la woon sax ñu dem ba coordination dugg mhm. dem ba cofeel dugg dem ba njaboot dugg tey groupe boobu noonu am na ñu ci takkante ay soxna soxna mhm. am na ñu ci tuddante ay doom am na ñu ci mayante ay njëkke yooyu yëpp ñu ngi ci kon loolu dafa am cosaan bu mu bu mu bu mu jógee. dafa am cosaan da nga ñëw rek koriyee sa benn groupe rek alxaji soppi dut kenn may waaye dafa am lu ko lu ko sabab. dafa am lu ko sabab parce que am na ñu ko daan créer du tere leen ko. d'accord ku ñëw mën la déedéet mais man bi ma demee nag ba taxawal sama bos hmm. moom dafa ñëw ne ma non non non non non na ko xoolal bu ci mag ñi àndul ma bàyyi est-ce que macha allah mais xam ne ne mag ñi àndul waaw ku gis événement bi passé xam ne mag ñi àndul waaw waaw yàlla barkeel Pape ala eh, tagg yonent bi noo ko gisee jamono bii ak bu njëkk mag ñi ku dégg air bi nga way nga yëg ni air air mag ñi la léegi ni nga gisee tagg yonent bi ban xalaat nga ci am ndax ni ñu koy defee tegu na ci yoon wala am na lu ñu ci war a jooyanti. waaw am na lu ñu ci war a jooyanti. Hmm. ndax euh, ni ko dut kenn di defe hmm. ak ni ko baay mbay doon daan defee. ak ni ko Abdou Aziz Baye di defee. Hmm. loolu dafa neex. waaw boo dégloo waaye de sa xol la jëm. dafa neex. ba ci génération bi am na ci ñoo xamante ne lii way dafa neex. lii waaye nga dégg ko dafa neex. Mm-hmm. parce que damay wax ni kuy roy tey Cheikh Tidiane Mbaye wala ngay roy Pape Malick. Mm-hmm. su fekkente ni li Pape Malick génn rek ngay xaar pour pour pour way. Mm-hmm. doo doon waykat. ndax Pape dafa am lu nëbbu ci biir lu ne ci moom. loo xam ne don mooy bu dee way kenn dàqu ko ko. mais day wayal mag ñi. wayal xale léegi nag yow bu fekkente ni fekki woo fu muy wayelee man ñi hmm. yow nga fekkee fu muy wayelee xale yi nga bëgg ko ceerooy doo dem te moom day dem d'accord Makhtar Sarr benn juge dafa ko mës a wax dafa wax lu am solo dafa ni bëri na kuy critiquer jàngkat te xamoo cause bi taxawoon ma doon jàng hmm. parce que des fois nga jàng nga gis jàng yu xumb yu met nga ni kii moom nan la wayee lii hmm. fekk ci anniversaire la ko doon wayee wala mariage waaw léegi nag yow da nga jàpp ne ci la ko doon def fekk fi mu fi mu milieu bi mu ko doon defee moo laaj loolu moo laaj loolu te bari na sax nag ñu ci dugg ci tarixa bi ci loolu est-ce que uh-huh. ah, waaw waaw way yu xumb yu te te kii noonu yu xumb yooyu ngay gis noonu mm-hmm. am na ñum dugal ci tarixa bi seetal lii mais nag waaw ci ki koy def la waaw ñi waroon dem tànd rek ay xumbal bu leen defalee ay way yu xumb baax na bu leen xëccee rek baax na xam dañ lay xëcc ndànk-ndànk mm-hmm. xam nga Serigne Cheikh dafa am fu mu mës a ñi ni mu fekk fa koo xamante ni ñoom dañuy mariage mm-hmm. mais suñuy suñuy suñuy bolot bu waxtu julli jotee rek moom day ñëw rek ni leen may leen ma ma julli jàpp julli continué waat ànd ak ñoom ci loolu ànd ak ñoom ci loolu ñooñu jékki-jékki ni ko waay yow sëñ bi tamit booy julleeti wala ñu ci leen woo ñu ànd buñ jullee continuer certainement kenn dem ba ñu yàgg ni ko mais lii ñuy def nii bolot bi ñuy def nii est-ce que mm. suñ ko defoon di ko jàng du baax du du mm-hmm. mu ne ko acca bisimilah ñu dem ba mu doon taalu jàng ñoo ñu xëy doon ay imam ñëpp bàyyi bolot bi ñëpp bàyyi bolot bi xam nga tey am na ñoo xam seen mission loolu la mm. ay Pape Magne Mbaye ay Samb ñooñu seen mission loolu la boo comprendre nag dañ lay woo ci loo xamante ne xumb na ba pare nag ba nga yegg si ba ñu yëg ni téye nañ la nag ñu doog laa nag woon man ñi nag ah, d'accord loolu moom am na ci loolu nangul nañ leen ko mais ñi nga xamante ne nag ñoom bokkuñu ci mission bi mais dañoo dugg si ci mission bi hmm. kooku dafa war a xam boppam d'accord dafa war a xam fi mu yem dafa war a xam fi mu yem ndax bis set ma nettali ko nee naa leen man dem naa ci dëj hmm. nit di fa way eh, doomi Abdallah naan diw nangam diw nangam diw nangam ci dëj ma xam ni kii dafa xamul loolu de Dakar la xanaa nii <laughs> dafa xamul <laughs> léeg-léegi tamit nga dem foo xamante ni doo bëgg doon jàngkat waaw dëgg yàlla parce que comme li nga wax sànq mm-hmm. euh, jàng boo ko defee métier mm-hmm. boo moytu sa xol dafay kiñaan waaw waaw dëgg la parce que da nga naan naajug dem mm-hmm. jàngi fële ndax ma am fa dix joxul nga mer nga yegg far amoo fa dix mille nga gis koo xamante ne tey ma ngay way la may way neex mu am fa cent mille francs hmm. yow amoo fa dix mille nga soxor loolu day soxor googu day dem ba mu jàgg day doon ki hmm. te yonent bi boo ko bëggee nag hmm. waroo soxore kenn waroo soxore kenn waroo kiñaane kenn dëgg la nit ku lu mu am war nga koo yéene tabarakallah kuy tagg yonent bi war nga koo yéene lu baax masha Allah beneen bi si toppit mooy kiy tagg yonent bi te yàlla tax xanaa xamoon ne boo ko doy jox sa alal doo doo doo ko ñàkk moo tax man fu ma fekk kuy tagg yonent bi ma jël sama teraanga jox kuy tagg yonent bi te yàlla tax nga wax te yàlla tax damay jël sama nga jox ko ko ndax boo ko joxee doo ko ñàkk du ma doo ko ñàkk man bu may dem tànt même bu ma ko waree woy damay hmm. yor sama xaalis boo xamante ne dama ko fas yéene may ñi woy foofu waaw loolu gis fekkee naa ko ba tàyyi nag wax dëgg yàlla su ma woyee ba pare nag hmm. lañ ma jox duma ko joxe de hmm. mais li ma moomal sama bopp parce que dafa am ñu ma àndal ñoo moom ñoom loolu hadiya boobu ñoo ko moom mais li ma moomal sama bopp nag sañ naa koo jël nag joxe ko haddi yonent bi sallallahu parce que kii joxe dafa bëgg yonent bi dëgg la kon bu mu la gën a bëgg kon doo ma ko gën a bëgg <laughs> fa tabarakallah macha allah rabbi Pape loolu leer na message bi am na solo wax dëgg yàlla jàngale nga fi lu rëy jaadu na kenn ku ci nekk nga xoolal sa taxawaay rek bëri na tamit lu di def bu ko ci gaaw a critiquer mais xamal li ca biir moo tax boo ko xamee nag di nga def attention bu ko defee loolu wax nga nu ko lu am solo la ñëpp ñu bàyyi ci xel Pape ma la nga bëgg laan mbokk yi balaa ñu dugg nag ci événement bi incha allah. waaw xanaa ñu. ah wooy sëñ Ba. ayca waa bisimilah. ko daan defee <laughs> ci kumar banaan fa mbay. dootu gëj. waaw cey kumar banaan ni fa mbay. dootu gàcc waawono waaw cey kumar banaani camay aha dootu gàcc waawono cey kumar banaani fabaysi waaw cey kumar banaani fa mbay banaani fa mbay dootu gaaj tiwaawano waaw banaani ca mbay dootu gaaj Fambaye doo tukka Tiwaawana gayi na siyaare ay ca nu dem gayi na siyaare ay ca nu dem buntiga Tiwaawana dëkku leer la asafane andi dem Tiwaawana Chambay. Lotuga Tuai Wano. Omare Banani Chambay si. Lotuga Tuai Wano. Wow, Nirumba Kwe Town of Coffee. Gai Nirumba Kwe Town of Coffee. Yejileri Bound of Coffee. Galusun Nakostanafe. وارب مويتوا ونور واجكما بناني شامي وتكتوا ونور ومري بناني شامي وتكتوا ونور Gaibatu dine wote na fi Gaibatu dine wote na fi Lampi dine takk na fi yoonu diine talli na fee jaar si leen ci waawono waaw cey kubaar banaani jambay dootu ga ci waawono bokku ci fanaani jàmbay si ah dootu géeti woote day sàmmanaay gaa yi woote day sàmmanaay ci misaal tibal ma ci daay tëf tëfam um, day àggum fay xal yu rëy waa ci kumar banaani famay dootu géeti waawono mare bana ni jambay si ndeysaan dootu ga tiwaawana kon nag taalu nga ñe mooy teppuka taalu nga ñe mooy teppuka te gogo tibal ma ci daay taalu nga ñe boy na fambay dootu fay tiwaawana waa Cheikh Omar bana ni jambay aha wallahi kon nag faju aajo gaaw cambay gaay faju aajo gaaw fambay ci suudaa ko fambay laaj ko daan dikke mbay fece beer te waawono waaw cey gumbar banaani cambay ko tuga ci waa ah dootuñu Tiwaawana kon nag jëmmi mbay si làqu na tey gaa yi jëmmi mbay si làqu na tey waaye cër ba gennu fa tey tey la waalo sax gën na aar wóor na waa Tiwaawana waaw cey kumar banaani càmbay aha dootuñu Tiwaawana ba mare banaani jambasi waaw bëggamul nga ñëw ca siya général di suwayo doon maw dobe kokoyo sag bi feeñ tuwa wono billahi waaye nga sëriñ Babacar nag kenn du si dafa demee ma ci bàyyi bàyyi sëriñ Abdoul Al Amin bàyyi sëriñ Cheikh Diagne ci borom daara ji kon way na mbay ci melo Abakar ñëpp way na mbay ci melo gay way na mbay ci melo ñëpp way ci melo kenn desul ko nay rek na yaay borom tiwa wono fas gi si yar ci loxo fas mbay si yar ci loxo xayru xalqi laa jox ko mbay mu seede ci moom ak borom ti waawona ak borom ti waawona ñépp way mbay ci meloom dellu sant mbay ci jikkoom kenn desul ku ney rëkk naan yaay mbërum ti waawono ci sëriñ Babacar Si rafetul doomu gaynde njaay wàcc waasoom ndeysaan jaxaso xar ya yàgg day inde raglu ndeysaan su ko xar ya yabee ci moom la du caaxaan billahi dafa war dellu àll moo gën a wóorlu ñu ne Baye Mbaye doon de mm-hmm. mu ne yow Serigne Babacar sunu yoneen ba altine yi bisu wuuteem moom Serigne Babacar i sa altine yi bisu wuuteem ah, bis bu tiis moom Serigne Babacar si dëgg la sunu yoneen ba nekk ay salafaato dafa nduru yonent bi da ko donn waaye kër si néeg yaa astula faato dafa donn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. kon bu nu jooy gaynde bàyyi nay gaynde booful turandoo mu de xar mbaa borom ku se dootu ñeete moo mu nekk soppim sama turandoo kenn du moom randuwul dafa làqu toog di nu seetaan bu nu jëflante gayndeem yi mu bàyyi billaahi bokk ci sama turandoo moo tax mu ne ñëpp way na mbay ci meloom mhm. dellu sant mbay ci jikkoom kenn desul ku ney rëkk naan yaay mbërum tiwaawono billahi aalim yaa ngi ñëpp la jiin ndan di ak seeni galay kenn desul ku ney woote naan yaay mbërum tiwaawoon moo tax ñu ne sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane mu ne yow sëriñ Babacar watumta amir alxaqi wa sidqi wal wafa rafiqan bi diidil ardi turran asudia ndeysaan ñu ni sëriñ Cheikh mu ni yow sëriñ hmm. yow yaay sama sëriñ hmm. bi nga làqoo ci biir bàmmeel boo mën a doon sama sëriñ jaratu ko est-ce que fa in lam yakun baabil xalifati ismatan li nafsihi fama maana rida wafqa bi juudiha ñi ni sëriñ Cheikh mu ni yow sëriñ Babacar hmm. sa jëmm ji mooy Muhammad bi ahmada bil mahmud bil xatmi bir rida wa bil mustafa wa bil muntaqa bil hudal badri kooku kafaana libaasan xayra an kaana adwi waaw ñu ni sëriñ Tijaani mm-hmm. mu yow sëriñ Babacar mm-hmm. yaay duniyal jununaati duniyal asa salaha wala karamatan fii duniyal junuunaati euh, moo tax mu ne ñëpp way na ci mela ñëpp way na ci mela dellu sant mbay ci jikko kenn desul ku ney rëkk naa yaay mborum te waawono waaw cey kumar bana mi ca dootu gëj Tiwaawono dootu gëj Tiwaawono moom Serigne Babacar Sy radiyallahu taala anhu Pape Sylla nga way léegi si li fàggare bi ma ci jawaara Serigne Babacar si nga xam ne ku di soppeem jëflante nag yow ci baatin nga wax ko léegi waaye tey jii la raw ndax Serigne Babacar Sy ñaari làmp lay nitee mm-hmm. balaa ngaa xam kan mooy baaba kër si nga am aajo mm-hmm. Alaji Abdou nee na ñaanu fajar li muy gaaw gaaw nee na nga ñaan ci barke Serigne Babacar Sy moo ko gën a gaaw moom si di fàggee demee ma ci jawaara boo ko werantee rek demal ci réew doom ba nga toog nga ñaan sa aajo ci sëriñ Babacar si nga retourné nga xool ba xam aajo boobu nga xam ne sëriñ Babacar si moom mën njabootam nga xam ne sëriñ Babacar si moo jubag yàlla ba lépp mu lu mu ñaan yàlla yàlla may ko ko moom si di faagee dem ma ci di waar moo tax tabaarakallaahu ndaw ñi dañuy judd di ko sopp rek mhm. ndaw ñi dañuy judd rek di gën a bëgg sëriñ Babacar mhm. képp koo gis rek mën na la man sëriñ Babacar am na fu mu jaar ak man mhm. loolu nag lu yàlla dogal la ci moom tabaarakallaahu alaaji Malick bari nay njaboot waaye nag ah boo demee Tiwaawan kat boo demee ci réew doom ba hmm. bu gàmm amee wala ziar am hmm. ah boo demee rang ba rang ba nga fay fekk nag doo ko fekk fenn hmm. te alaaji Maalik ñëpp la jur waaye nag loolu yàlla ko yàlla ko jagleel moom sëriñ Babacar sama turandoo yal na ko yàlla fayal ale Pape waxal baat sëñ Babacar rek lu mu fu mu jaar ak yow ñu dugg nag waa man nag sëñ Babacar moom fi mu jaar ak man moom du ma ko du ma ko nettali ci télé du ma ko wax ci rajo tabaarakallah la baat ba daal naan yeewu leen te xam ne du neen dëgg la ki mu doon mm. tawoo siwu leen mm. yàlla moo ko fal li mu doon du càggan mu woote ko du càggan mu woote ko moom Serigne Babacar Sy Babacar daal mm-hmm. bëgg naa ko mm-hmm. xam na ma xam naa ko mm-hmm. tabaarakallah mi ngi noonu kon nag yal nañ ko yàlla fayal amiin yaa rabbal alaaj Pape ñu juglu nag ci benn événement bu mag événement boo xam ne ndigal la ndigal lu jóge ci Seydouna Muhammad wàcc Cheikhu Tidiane wàcc nag ci maam Cheikh Seydi Hadji Malick waaye nag wàcc ci sëtam bu tedd ba Serigne Abdoul Aziz Al Amine jàmbaar ja nga xam ni moo joxe woon ndigal li nag fii ci stade Amadou Barry yàlla dogal nag événement bi mm-hmm. nekk le huit mars mu mm-hmm. tombek nag bisu jigéen ñi mm-hmm. Pape événement boobu laa bëgg taarixu xadar bi lan moo koy indi waaw Babacar loolu moom boo ma ko laajee dama ciy sawar parce que bis bu set ma wax ko ma ni leen Mouhamadou Fata Sarr yàlla ko yàlla fayal amiin jàmbaar la waaye kenn du sëriñ Abdou sama góor gi bokk ci ndax dañuy wax ne nitu yàlla bu ne hmm. ginnaawam dina am lu mu bàyyi dëgg la sëñ Abdou nag martabaam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy xadara suñ hmm. daal xadara ci jàkka ndax ponk la ci tarixa bi ponk la ci tarixa bi waaye nag nii mu mel ni sëñ Abdou ndax moo amoon gis-gisam ku ne mu dàkk la ko pour bëgg ko mu am ko dàkk yàkkamti bisu Seexu Tijaani kum mbubb la kum ko solal rek jotu ko dëgg dem dëgg naa sëñ Fata ne sëñ Abdou sant na ko ñu bëri mais réussir ko déggoo li ma la wax mbubb la ko solal jotu ko mais sëriñ Fata Sarr moom la yàlla dogal mu réussir ko sëriñ Fata Sarr lañ solal mbubb mi mu jot ko mu jot ko <laughs> loolu nag nangu dogalug yàlla nag dëgg la nekku ci dëgg la dëgg la la wa doon wax naan bàyyi leen di xeebi xale am xale loxom setee hmm. jëf ba mag ña xëy na ko yaa ñu doon ay xul du tax si déedéet déedéet dëgg la Mamadou Fata dafa dem liggéey jënd këram. mënoon hmm. ko luye. Hmm. di ci am xaalis. mu hmm. tabax ko jàkk. ba ko tabaxee jàkk bare ni sëñ Abdou kët tabax naa jàkk ji waaye dama bëgg nga ñëw. inauguré ko. sëñ Abdou ni ko jàpp ñu jàpp bisu àjjuma. sëñ Abdou ñëw inauguré ko pare ñu def xadara boo xam ci bayaalu CFA bi. wallaay yàlla dogal na man mii di wax ak yow. dara ump ci. waaw yow yaa fekkee ndax Mouhamadul Faral Sarr première édition. Mhm. maag moom ci oto. Mhm. télé yi ñoo fa dem. bi ñu njëkkee dem di wuti ay baas bi ñu yeggee baas bi ñu bëgg dix millions lañ ñu wax. est-ce ñi ñëw ma ne ko sëriñ bi dix millions dafa bari. Mhm. te beneen bi ci topp mooy li nga bëgg a baas mbooloo moo xam ne. mën na ko fees mën ko feesal. mënuma naa def baasu tànt yi. ma ne ko bâche yi waaw dix bâche baax na mënuma dee trente cinq bâche ay bâche ma ne ko foo koy feesale <laughs> mënuma sama pas-pas ci sëñ Babacar wallaay pas-pas mën na lu ne mën na lu ne te li tax pas-pasam ci sëñ Babacar mooy sëñ Fata Sarr ñu bëri xamuñu ni sëñ Fata Sarr kaset la def di ci waxtaani sëñ Babacar am lum ci wax loo xam ne njuumte la ab hmm. Abdou déglu ko ni xale bii doon waxtaan kan la ñu ni ko dakaar la dëkk Fata Sarr lu tudd mu ne nañ ko ko wool mu woolu ko mu woolu ko Fata ne bi ma woowee dëgg rek laay wax bu njëkkoon damaa ragal. tiit daa def dëgg la. waaye ku ñuy wax mbayloo moo ne ko ñëwal expliqué ko lu bari ci sëriñ bi mu doog a ñëw bi mu ñëwee sëriñ bi ni ko nag ki la nettali ni ko nettalee mu ne ko diw moo ma ko wax mu ne ko dafa juum nettali ko nettali ko nettali ko ko nag ndaw su amee xam-xam am teraanga lu neex a yilif waaye nag yow gis naa ne bi nga fi ñëwee. Hmm. ay yoonu yoonu yoon jox naa la ay rendez-vous ni la demal nga dem ma woowaat la ni la demal nga dem ma woowaat la ni la demal nga dem ba muy ñetteel yoon ma xam ni yow mii mën na ñoo bokk mission bi maag yow ndax ku yàkkamti bokkoo ci mission bi ku bokkoo ci mission bi. kon juum boobu moo tax moo indi relation. Serigne Fata ak Serigne moo indi relation ak. Serigne Abdoul Aziz Al waaye boobu fekkoon na tamit. Fata nekkoon ci avant mu ko xam mu hmm. def xalwa hmm. ni dafa bëgg Serigne. kuy sëriñam sëñ Babacar feeñu ko moom sëñ Fata ndeka sëñ Babacar mi mu ko feeñu ndeka sëñ Abdou la ko bëgg a boole ndax waxtaan bi mu def ci sëñ Babacar ko akbar nga ni ñu baas léegi ñu baas trente cinq baas hmm. sëñ Abdou ñëw bi sëñ Abdou ñëwee kenn amul foo teg sa tànk hmm. Fata dem ñun ñu dem ñun ñoo ko ñëwoon waa daayira Mutahabbina Fillahi ñëw hmm. affaire bi jeex nu dem moom nee na waa ji ñuy wax Doudou Ndiaye. Ndiaye romb naa ko léegi rek ba muy ñëw. ni ko daal lii daal wóorut a dàkk. bi mu demee ci sëñ Abdou waxu ko. Hmm. sëñ Abdou ni ko waaw man nag bëgg naa bisu Cheikh boo xamante bisu Cheikh na Tidiane boo xamante ni ñëpp dañ ci daje ñoo def xadar si jumaa bu mag bëgg naa ko. Hmm. ak bëri na ñoo xam sant naa leen ko ñu échec ndax dañ ciy def seen yëfi bopp. Hmm. te booba Fata première édition bi bindul lettre bindul dara. lépp ci xaalisam. ñu jóge foofu def deuxième édition bi. ci xaalisam ci xaalisam. Hmm. jóge fa def troisième édition bi. ci xaalisam xaalisam. moom Serigne Fata Sarr. waaw. Hmm. képp mi ñu delloo sëñ Abdou ni ko waaw yëf yi nag euh, neex na lool mais dafa bëri picc xoo nan ko organiser waat xajutuñ fa. Hmm. Fata ne ko mais man digal ñu dem ci stade bi. waaw ah, fit bi de yi rëy moom. fit bi mu ne ko ñu dem ci stade bi. <laughs> est-ce que sëñ Abdou ni ko jox naa la ndigal. parce que boobu am na lu mu gis. waaw xam na ki mu koy dénk mbata na ko. sëñ Abdou ne ko. jox naa la jox naa ndigal. Hmm. nu départ wuti stade bi ñu demee man mii di wax ak yow maa jël micro bi nii lépp luy tribune bu ci kenn toog noonu toog ci pelouse bi ndax mu rak bu feesee rafet bàyyi leen tribune yi. Hmm. ndekete boobu man ma naan bàyyi leen tribune boo moytul maa nar a bàyyi tribune yi bàyyi tribune yi waaye ñu jékki-jékki rek ndeysaan tribune yi fees ba kenn amul foo toog ci biir fees ba kenn amul foo toog bi fees ba tribune yi fees li ma la ba tribune yi fees loolu ci première édition première édition bi laa la wax allahu akbar loolu ndimbalu yàlla dëgg la est-ce que sëñ Abdou nag ci la kontaan nag daanne bala maa kontaan nag ñu jël mbalaan mi lal ko ba pare moom sëriñ Abdoulaye waaw gis-gisu sëñ Fata nag lal ko ba pale nekkul dañuy jël mbalaan mi tàllal ko rek wuti pale déedéet mooy na tas ci àdduna bi boo defee mu tas loolu ëpp naa def na ci àdduna bi ci lañ jógee nag samp ay section nag buñ hmm. demee gox bee xadaral kële dem fee xadaral kële ci lañ ko defee ba yéen waa Malika ngeen dem instant nekkul ci xadara bi yëpp ah kon nekkul ci xadara bi rek mais gox goxaar yi mi nga am ay xadara ba ci ba ci ba ci àll bi région yi yëpp ñi nga am ay xadaratul juma quatre-vingt-six section lañ yor yu mag quatre-vingt-six section yooyu section bu ñu boot nga section allahu akbar dafa am section am sous section sous section yi da ngay gis benn dëkk boo xamante ni dina boot lu mat quarante cinq village village bu ne un mois bu ne gars yi dinañ fa def xadara suñ fa defee xadara ba ba ba ba at mi mat village bu mag bi nga xam ne moo nekk section bu mag bi organiser xadaraam suñu paree xadaru yooyu yëpp ñu dajale leen di leen ñëw leen stade Amadou bari mooy final bi kon su ma déggee àjjuma bu nekk am na dëkk buy xadara wala am na quartier buy xadara am na quartier buy xadara bu duggee ci boo ko yëgee boo ko yëgul te ab naawu moo koy coordonné déggoo dañoo dem Rosso am benn waaye bu ni moom dafa amoon ay rakam yoo xamante ni danoo jàddoon nekk ci leneen mais nee na mu xëy rek ni leen léegi yenn a organisation dugal leen ci biir xadara dugal leen ci biir xadara bi ñoom bu ñëwee duñu xadara dañuy ñëw rek yor organisation bi sol seen i tiset di organiser di seddale ay café yu kenn xamul. Mm-hmm. mais gars yi bi leen affaire bi duggee léegi ñooy ñooy xadarakat yi. ñooy jiite ñooy jiite xadara yi léegi ma de damay wax ne allah allah ku ko contre da nga faa teewul. non non mais barke yonent bi laa la wax boo toogee ci. xadara stade bi noonu allah allah mbaa ci jàkka mbaa feneen. sa xol yëngu ba mu yëngal la. Mm. am na loo xam bu xësee ba ne ba dugg ci sa xol. kenn mënatu la koo tere ilaa yow mi di fa tabarakallah loolu leer na mais pap événement bi la huit mat maanaam tolluwaay yi fan la toll jamono bi fi mu toll dangaa baax rek di ma ko laaj waaye maag yow ñoo ko ànd di ko dox waaw waaw waaye damay laaj rek yow yow yow yaay ndaw xadara bi mooy sax baax rek <laughs> ndax damay wax ni <laughs> hmm. joxe cër hmm. doo tax wàññi cër wax sa mbaaxu waay du wàññi ci mbaax dara hmm. te xadara bi ñun ndaw yi Dakar ñun ñëpp ñoo ànd takkoo. Hmm. nekk benn. Hmm. di jàppale Mouhamadou Fattah Sarr dëgg la ñu nekk ci. Hmm. fii may wax ak yow nii. démb gis nga ko ñu noo préfet waaw ñu préfet ca stade ba ca stade ba. barki démb lañ def CRD. bañ defee CRD bi gis nga ko. ñu xëyaat àndaat moom nekk ci ah, terrain bi. gis nga ko ñu gars yi kenn nelawatul kenn yëndootul kenn fanaanatul mais am ana koom bi baa mi nga dugg parce que fee liñ fa war a rey ci ay gàtt def naa lim bi pap bëri na li ma la gis nga man yi ñu war a teg bëri na gis nga bisu sëñ Abdou damay wax ni bisu sëñ mhm. ku yaakaar ne yaa koy doxal bàyyil ba jege si nga tukki waaw day gën a dox gis nga xadara bii fi mu toll may wax ak yow pap si la lim ciy jàmbaare jàmbaare bis bu ci nawee li muy def ba tukki mhm. day doo xam ne deful dara deful dara day gën a dox palaasam day keneen a ngay ñëw du gën ko doxal yaa ngi xool Facebook. Mm-hmm. yaa ngi xool feneen. Mm-hmm. ndax information yi ni mu daan jàllee ak ren ni mu ndax benn la. du benn de tey la gën a tey la gën a yëngatu tey la gën a siiw. nitu yàlla noonu lay def. mbiram moo ko téel boo xadara bi sëñ Abdou moo ko téel boppam. Mm-hmm. ndax bu demee ba taxaw te sëñ Abdou du waxee bakkan ni billaahi wallaahi taalaahi. xadara esaat Amadou Bari bi ku ci ñëw seex tappal la garaat ndax seeni i borom négocié na ak ñoom bañ nangu ko. moom sëriñ Abdoul Aziz Al Amin moo wax loolu. sëñ Abdou waxantu mu ne lan. nga ni mu ni billaahi wallaahi taalaahi hmm, hmm. xadara bi ku fi ñëw Cheikh Tappal la garaat ndax négocier naa ko seen borom bañ nangu loolu nag soññ la ci képp kuy jullit rawatina ngay taalibe Cheikh le 8 mars bi foo mën a nekk ci àdduna nga ñëw ndax Serigne Abdoul Aziz Al Amin ba mu joxe ne négocier naa ko seen i borom ba képp ku ñëw ci xadara bii nga xam maa ko joxe ndigal Cheikh Tidiane takkal la garaat mbokk yi loolu du ay caaxaan pap yamul foofu de. mu ne la ba pare yëkkati 3 millions. moom sëriñ Abdou moom sëriñ Abdou. Hmm. ne Fata bay naa ba àggal. Hmm. génne naa azak. Hmm. lii sama àll la lew na doom dugal naa ko ci bisu Cheikhu Tidiane. moom sëriñ Abdoul Aziz Al ni ko nag diis na. waaye dama doon xool ba xam man nga ko wala mënoo ko moo tax ma croiser la bras parce que mbir mi li koy doxal mooy ki kiñ koy fal kiñ ko sas mooy ki nga xamante ni lu mu am def ci luñ ko jox mu def ci. waaye du lu mu am def ci ba pare dem di jël leneen di def ci poosam. déggoo li ma la wax de xam nga ki liggéey ba am cinq millions def ko ci xadara. waaw du ci jël deux millions ko joxee un du ko def. ci poosam du ko lekk du ko lekk de. moo tax mu ni ko ki ma koy sant mooy ki nga xamante ne lu mu am def ci lu ñu ko jox mu def ko ci te xam naa ne yow loo am def nga ko ci te ñu la jox nag bëgg naa nga def ko ci kon demal nga seeti ay nit yoo xamante ni dinañ bëgg Seexu Tijaan def ci seen alal te buñ la doyee dal képp ku la doyee dal bu fa dem. loolu mooy wane ne euh, tabaarakallaahu bul dem fu lay doye dale loolu moo indi nag ñu commencé nag di wax naan gars yi barkeelu leen ci ju ci ci ci ci ci xadara bi ndax bassan yi gis nga ko bassan yi keroog bañ ne bassan lañ bëgg trente deux millions gars yi ñu dem jënd ay bassan trente deux millions oui mais pa waxuma loolu rek restauration bi rek ni mu toll liñ fay rey ci ay nag ma day nii teg nga xam ne dëkk àll yi maanaam kenn ku ci nekk yaa ngi jël say kaar di ñëw ci xadara bi ñooñu ñëpp nga war leen dundal ñu lekk naan lekk naan loolu du ay caaxaan du ay caaxaan loolu ay millions moo naan daaw quarante six ga euh, nag quarante six nag daaw lañ lañ fa def ren gars yi ni bëgg nañ cinquante wala cinquante cinq wala cinquante cinq mën yi moom ay mille waaw loolu nag am na ci ñu ci bokk ñoo xamante ni hmm. kenn siise siise yi hmm. bu nu ñëwul bu nu bu nu lekkul ba suur bu nu mën a xadara du mën a xadara te xadara nag <laughs> dafa laaj lekk ba suur nag dafa laaj nag <laughs> dafa laaj lekk ba suur dafa am lu mu laaj ñoo bu dul loolu rek sa baat dina suufe mais Pape jigéen ñi looy wax balaa ñoo daaneel jigéen ñi nga xam ne nag dafa tombeek le 8 mars boobu ñu koy askanale nag euh, soxna yi mu tombeek xadara bi jigéen ñi ban ban te nga leen di jox ak ban message nga leen ciy jox. waaw jigéen ñi man euh, woo bi ma leen di woo mooy. Mhm. sens la mu tombeeg ñoom huit mars da daan am gars yi def ay palaato ci télé yi mhm. ren nag plateau bu mag bi mooy stade Amadou Barry mooy plateau bu mag bi huit mars mhm. nga dugg stade gars yi bàkk suñu borom loolu sens la ci réew mi dëgg la te mën na indi jàmm ci réew mi mhm. mën na indi juboo ci réew mi mën na indi bennoo ci réew mi mhm. ndax réew mi ñaan la laaj mhm. te bis boobu la fay teew ci mbooloo mhm. bu ku nekk waxee benn allahuma yàlla mën nañu ko rus nangu ko wallaay dëgg la jigéen ñi nag li ma leen ciy jox mooy la Serigne Makhtar Sarr waxoon mooy fu waay di wutee ji yàlla da fexeel boobu bu fa am safaan dëgg la nanu muuru ba jekk wàññi snap bi ndax di dem xadara nag wax dëgg yàlla di dem salon jaru ko xadara dëgg bu ci salon amee moom xaw ma jaratu ko. dëgg yàlla dañ la booy julli comportement bi ngay amee. Hmm. indi ko ci estade bi ndax mooy tax nga am yiwu xadara. Ah, man Pape gisaguma kuy julli di maquillage man gisaguma ko. waaw moo tax nag boroom xam-xam yi ñoom waa waa waa waa commission culturelle bi li ñu wax dafa leer dañuy ren. Hmm. pour ku dugg ci stade bi. Hmm. la ko tàmbalee sa lii. ci ki jarab yi. waaw lépp day muur. sa ndom sabaat bi dañu wax ni na nga ko muur ba du feeñ say loxo dara du feeñ yow ko jigéen ki ba nga xam booy julli boo kàbbaree du feeñ hmm. noonu lañ bëgg nga ñëwee ko hmm. ci stade bi jaamoowee ko yàlla noonu c'est important c'est loolu dañ ko dañu wax ni jigéen ñi nañu sol col gu jot seen bis la muur seen bis la ñu ñëw bàkk yàlla ñoo ko moom ñu ñaan yàlla nangu jàmm ci réew mii hmm. loolu gars yi wax nañ ko kon na ci ñëpp bàyyi xel ah beneen bi ci toppit mooy bis la boo xam sagam sëñ ab doo ci def alalam hmm. ku ñu def sa alal dootoo ñàkk déedéet mukk ñun ñii dey hmm. fu ñu dem ñooy paasal suñu bopp dëgg la ñooy paasal suñu bopp aller retour am naa parce que euh, li ma wax Abdou yi dama ni ko ki nga seeti yàlla rek fa am de ab ki nga seeti mu jël un million def ko ci xadara bi hmm. gënu la bëgg Cheikh déedéet gënu bëgg yiw dëgg la am na ko def na ko ci yow dox nga am ak sa doole ak sa paas defal sa dox ak sa paas muy sa tarbiya comme kooku comme kooku yaa ko joxe million yéen a yem. yéen a yem mais bu fekkente ni yow da naan moom man xadara bi nañ ma jox paas rek ma dem mais ki yëkkati un million def ci nag ëllëg mu ñu ñaanal ko muy yokk. muy gën a yokk da ma ciy def sama doole def ci sama tarbiya ba ëllëg ma mën a génne un million joxe ko boole kook liggéey. sama benn waay daf ko wax euh, benn waayam dafa ñëw ni ko yow programme yi lay tuddee di la wax gars yi dañ lay dóoree rek mu ne ko waa man de dóoree bi baax na ndax saa ni ma dóoree Cheikh Tidiane maanaam saa ñu ma gars yi dóoree rek su ma xëyee am beneen projet bu ëpp doole boobu may gën a yokk mu ne kon nag dóor gi dóoree gi may dóoree baax na moom laay dëggal rek ku ci def sa bopp nga defal sa bopp nga ci defal bul bul bëgg ku la ci ëppale ni ci nit di sonn di ci def xaalisam yow defal li nga am defal li nga am mhm. sa doolee comme ni ngeen koy defee rek mhm. nga xamante ni tey bu leen neexoon xadara bi mhm. ñoom Babacar ñoom Moustapha Mbacke mënoon na sol sa sañse sol lu weex sol mbaxana toog di xadara waaye ña nga ca toilette ya di ko raxas ba mu set di séddale ndox mi di séddale ndox mi setala yi mm-hmm. ku sa njàpp mm-hmm. wàcc mm-hmm. toj nga dem yeesal sa njàpp ku bëgg a tuur ndox dem toilette yeeg lépp ñoom ñoo koy raxas ba mu set wicc ku mara naan naan saa waay woowu yiw kenn xamul nu mu toll kenn xamul nu mu toll foofu laay profité Pape di la wax ne ah tabarakallahu ah ñu ngi ciy lancer wàllu message képp kuy jullit nga jàppale ñu ci loolu nga xamante ni ku xam ku waxtuwaale toilette soxla na ay racleur ay bale soxla na ay siwo soxla na ay paan waaye tabaarakallaahu soxla na ndox moo xamante ne tey ku fa ñëw di nga mën a jàpp waaye boo maree di nga mën a naan bu ko defee ñu ngi koy waxaale mbokk yépp ku ci mën a jàpp rek nga jàpp ci am na affiche yu ñu génnee def ci ay numéro téléphone ku ci mën dugal wéef nga dugal ko ci jàpp ci ngir jëm yàlla ak bi alaaj pap xam naa ni waxtu bi jeex na ba noppi waaye ñu bàyyi la rek nga wax kàddu gu mujj gi ah tabaarakallaahu ak message bi jàllale bu ko defee ñu tënk incha allah waaw kàddu gu mujj gi mooy euh, sant ñi ma àndal muy euh, Ali Fadiga. Ali Fadiga waaw ak Salih euh, Salih Seck. Salih Seck bu sëñ Abdou. Ali Ali Ali Ali Ali bu sëñ Abdou. waaw. Saliou bu sëñ Seydi Jamil xam nga loolu tam dafa neex loolu dafa neex ñoom ñu nekk ay xale yoo xamante ni tamit wax dëgg yàlla mën mm-hmm. nañ li ñuy def mm-hmm. ba pare yor seeni groupe ndeysaan di dem fu ne di jàng ndeysaan waaye bu ma leen soxlaa mhm. amatuñ benn occupation mhm. dañ naan la yow waxal rek ndeysaan nit nag bu mënee dara ba pare boole ko yar ak i teggin nag loolu wax dëgg yàlla bu tegee loxoom rek mu dem mhm. te ñoom ñi ci loolu lañ nekk am nañ yar am nañ teggin te mën nañ li ñuy def ah ma sant leen bu baax këram leen ndax bu leen neexoon nañ ñu ni ñoom ni moo amee group noonu lañ amee group waaye ñoom ñooy suma groupe ndax ñoom Euh, lu ma bëgg rek lañ bëgg. foo leen woowee rek ñu ñëw fu ma leen woowee ñu nekk. macha allah ñu ñëw. ma sant leen gërëm leen. Mm-hmm. ah beneen bi ci toppit mooy li nga wax sànq. Mm-hmm. moom laay tëjee samay kàddu mooy xadara bi. Mm-hmm. na ci nit ñi dugal seen loxo. waaw yàlla kese moo ci nekk. dëgg la ñu ñi nekk ci biir. xam nañ la yàlla ndax léeg-léeg nga gis ko organiser mbooloo. am ku toog fële. ah gars yi de am nañ ci xaalis. waaye wallaahi wa taala képp ku bokk ci commission bi. juróomi junni ngay cotiser <laughs> dëgg la sa képp ku bokk ci commission bi juróomi junni ngay cotiser suñu xaalis yi njëkk bu dee section abunaaw yi hmm. am na section yoo xamante ni cinq cent mille lañ joxe waaw ñun cinq cent mille la ñuy joxe am na sous section yoo xamante ni deux cent cinquante mille la ñuy joxe hmm. am na ay bonne volonté yu nekk ci biir ñoo xamante ne cinquante mille lañ joxe dëgg la ñun ñi nekk ci commission yëpp waxuma suñuy passe ak aller retour de loolu dañ naan la sa tarbiya la mais vingt cinq mille cotisation yi moom c'est obligatoire mënut a ñàkk war a joxe hmm. ma gis ni yàlla kese moo ci nekk hmm. Adama Sarr mi yor dog yi hmm. Adama waaw yàlla yi bu ci cent vingt quatre millions la koy tasaare ci àllu Saalum bi li ñu def ci ay jawharatu kamal lim bi kenn xamul nu mu toll te lépp sëñ Abdou ko ci xewoon mais dañ ko jël teg ci loxo aadama moom mooy coordonné moo koy coordonné ci sëriñu daara yi ba mu ko tàmb xadara daaw ba ba mu jeexee lan ko tàmbalee woon ba xadara ren bi bu delsee fekk ñu doo ko tëj ci biir xadara bi fa la ñuy tëjee fa la ñuy tëjee ñaan yi taysir rek douze mille taysir la ñuy tasaare ci àll bi loolu bu loolu baax moo loolu kii dara gënu ko am doole ci Sénégal te sëriñu daara yooyu seen tarbiya lañ ko def barakallah yow yaay fexe rek bu nu paree euh, la des ca yëf ya mm-hmm. sëriñu daara yi lañ koy séddale ñii di jàng dog yi nii lépp lu des moo xam lépp lu ñuy utiliser la lu des sëñ Fata sëriñu daara yooyu la koy jox baarakallah kon yàlla kese moo ci nekk dugal leen ci seen dërëm mm-hmm. yàlla fay leen ndax bisu Cheikh Tidiane la mm-hmm. bisu sëñ Abdou la bis la boo xamante ne ku Cheikh njaboote dangay ngay ñëw baarakallah waaw alaaj Pape jërëjëf tabarakallah mbokk yi mi ngi noonu kon nag le 8 mars fii ci estatu Amadou Bare muy stade Guédiawaye fa lañ fas yéene lal mbalaan bi nag bàkk yàlla julli ci Seydina Mohamed mbokk yi xam ngeen ni xadara boobu nag ndigalu Serigne Abdoul Aziz Al Amin la xadara boobu Serigne Abdoul Aziz wax Al Amin wax na ni képp ku fa ñëw Cheikh Tidiane takkal la garaat man Serigne Abdoul Aziz négocier naa ko ba yàlla may ma loolu wala ba seeni borom may ma loolu bu ko defee mbokk yi bisu ñaan la rawatina jigéen ñi bis la boo xamante ne kenn ku ne war na ci profité ñëw jéggalu say bàkkaar waaye kenn ku nekk war na ci profité ñëw tabaarakallaahu ñaan projet yi nga dëñ wala yi nekk sa kanam yàlla may la ci réussite kon occasion la ci ñëpp waaye rawatina suñu mbokk jigéen ñi mbokk mi ngi noonu bu ko defee ngeen bàyyi ko xel le 8 mars la fii ci stade Guédiawaye xadaratul jumaa alaaj Pape Sylla la ñu sant la nag bu baax gërëm la ci euh, tabaarakallaahu woyof gi ci mbaax gi ndax ku ne xam ne ne jamono bii amoo jot ndax xadara bi lu ci bëri yaa koy na waaye tabaarakallaahu ñu woo la nga ñëw ñu àndandoo tabaarakallaahu waxtaane xadara bi waaye ñu tagg Seydunaa Muhammad nuyu sa frère yi nga àndal ñoom it jaajëfal leen bu baax a baax bu ko defee le 2 mars incha allahu bi mooy tàkk saanu Serigne Pape Fall mu Serigne Babacar Sy fee ca Tëngéej tabaarakallaahu bu ko defee le 2 mars la mbokk yi ñu ngi leen koy bàyyi loo xel di jotaay bu màgg nag di jotaay yu xam ki koy def tamit di jàmbaar Serigne Pape Fall nga xam ne léppam Serigne Babacar Sy la tabarakallahu mbokk yi le 2 mars la fee ca Kounoune wala boog Tëngéej incha allahu rabbi waaye xam nga nag El Hadj Saliou moo nekk ca wayya waaye nag alhaji Souley Diop mu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mooy waxtaana jotaay ba waaye nag su teewaayu sunu sëriñ nag sunu soppi sëriñ Ahmada Sy ibnu Cheikh Sidi Mouhamadul Moustapha mooy ñëw nag ci jotaay ba tabarakallahu soññaan njaboot gi yëpp tabarakallahu mbokk yi mi ngi noonu le 2 mars lay doon fee ca Tëngéej alhaji Pape mu sëriñ Babacar mbokk yi mi ngi noonu ñu ñaan yàlla yal na yàlla nangu nuyu sëriñ Ahmed mi nekkoon ci caméra bi nuyu soxna Ndeye Fatou tabaarakallaahu ziyaar ko bu baax ndokkeel ko mbokk mi ngi noonu xam naa incha allahu rabbi ba benn émission Kër Nabi ngeen ànd ceeg seen bokk seen xarit sëriñ Babacar Gueye moom sëriñ Abdoul Aziz Al Amin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu dellu sant mbay ci jikkoom ndeysaan kenn desul ku ney rëkk naan yaay mbërum te rafetul doomu gaynde njaay wàcc waasoom